dal leen ak jàmm ñu koy tàqañ yéeni kaay xëy ndoo tàmbale ko contrôle des parrainages ubbil yéeni kaay bi di wal nee nag la caay xëy neexul naka am na ci loo xamante si daanaka dara ma teegul ci wàllum parrainage citoyen ñoom naka daanaka ñoom seen ci ñoo xamante ni a bokk ci moo leen gën a jege yoor yoor bi yéen kaay dikkaat ci examen de passage des parrainages ay leaders yeeyu askan wi fi ñu naka taxaw a récalé 60 dossiers naka càmbar nañu ko ba ñu ko tàmbalee ak léegi juróom benn ñoo admis d'office fukk yi naka ñoo leen téyene si second tour naka maanaam dem nañu deuxième tour 44 yoo xamante si neen leen acca bokk leen 33 dossiers à examiner ni waaye naka am na si ñoo xamante daanaka seenu mbir leeragul ki nga xamante moo di ñoom ñëpp naka seenub ëllëg dafa lëndëm kii lëndëm li kay buñ dàq ko moo di Abdoul Bara Dolly moom naka gànnaara buñ ko teree nag ne buñ doon say parrainage lañu lañu digle rek moo di dana effacé wu gannaaw bi nga xamante ne ci candidature Sonko validé nañ ko yéeni bi nag am si ab xii ndax loolee wóor na lu si wóor lu ne naka fintoon yi bi ne nag Ousmane Sonko ak Khalifa

candidature naka ci première chambre pénale naka bu cour suprême bu affaire Prodac Sonko croise les doigts moom ak Mbaye Mandiaye naka ni ki la lépp war a leer les échos yéenekaay ne Karim ak Habib Sy jàll nag six ténor ak six treize yoo xamante ni si ñu ngi ci biti yéenekaay bi naka source a na Sonko joue la montre nag moom ak Mame Mbaye Niang ëllëg bi naka dina leer nañ ndax dañ leen a war a seen mbir boobu nga xamante ne moo leen lëkkale woon boobee jamono Khalifa Sall candidat la présidentielle la mu bëgg rek moo di régime présidentiel boo xamante ne dafa déconcentré wu am na ay achat de parrainage nee na nañ ay groupement de femmes ay responsable yoo xamante ne si da jox ay responsable ñu utal leen ay parrain boobee jamono nag l'observateur di kaati Sonko Mame ko tuddee combat armée de machette maanaam ab jaasi la ngànnaayoo moom prévenu bi dafa topp interprète boobee dàq ko ndax ndax jàppoon na nekk condamnation boobee moom moo ko dal dee sookee te moom la mu def rek moo di jottali li am li am bu am kay moo di affaire diffamation contre Mame Mbaye audience suprême naka pour Sonko Sonko ak Mame Mbaye seenu mbir naka niki ji laay leer Bougane wàccee na nag Macky proposé na tekki ndax jàpp na ne 98 pour yi nga xamante bëggee éliminer na ko def naka ignoré naka gëm sa bopp moom def nañ liggéey bu am solo ci jamono ji nga xamante ni ñoo ngi amal campagne de parrainage boobee jamono nag valorisation potentielle ci wàllum cosaan ak aada Macky Sall bëgg na lu ko raw gannaaw ëllëg naka pose première pierre emblématique naka mémorial bu gole danañ ko amal naka boobee jamono ñoo ngi waajal inauguration naka li nga xamante ni moo di mémorial musée ba ñu jagleel Lac Rose rek la doon entraîné te gisul benn yoon njabootam lëlu woon la def di liggéey nee na Boy Niang fintoon yi gone la am na ëllëgam nag ci wàllum làmb bi nag tour suivre nag carrière am ndax itam làmb ci dese na ci lu bare sanction naka Boy Niang ñàkk na ñaari million ak lu topp boobee jamono Modou Lo benn million ak lu topp la daldee ñàkk ci boobu le combat ñoo ko déggandoo jaa ngeen jëf ba ëllëg